asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 12 novembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci likkaay yi moo xam sunu làmb la record la tribune ba ci leewtoo point fu ci nekk rek xëy nañ tey fekk fa mbirum làmb buñ ko jëkkee ci yëglikaay bi nga xam ne nag moo di sunu làmb moom yëglikaay ba mu tey ka mu xëy ñëw fësal muy mbirum mbur mi nga xam ne moo di bombardier yëglikaay bi nag mu ngi ñu wan bombardier boo xam ne mu nga dëkk loxo ya mu mel ni ki nag bombardier daal fi mu nekk nii sunu làmb moom ci ay waxam jàpp na ne bombardier fi mu nekk nii daal ñàkk lay bañ moom daal dara bañu ko ngir amul combat yëglikaay bi xëy ñëw tey duñu ko wax ndax li ko waral mooy li nga xam ne nii moo di carrière ba ci jeex la jëm moo tax suñu làmb jàpp ne day xale bu yéeg Bombardier bañu ko fi nekk nii kase bu ñu wàcce ba ca suufa suuf itam Bombardier bañu ko moom daal li mu bëgg mooy tooyalam xaftaanam takk ngemmam dugg ci géew bi bëre suñu làmb xëy ñëw wax nu mel ne noonu keneen koo xam ne moom dugg na ci géew bi bëree ba tey mu nekk cay bëree waaye yëglikaay bi dafa ñëw ci moom dellu ay at ci ginnaaw combat yoo xam ne bëri woon ko mu jukki ca ñeenti combat muy Gris Bordeaux combat yoo xam ne day na ba ca njëkk mooy ki nga xam ne moo nekkoon écrit Ndakaaru tañ ko daan wax Antoine Bakhoum jël ba nga xam ne Gris daanoon na ko fa nga xam ne moom moo di ca stade Iba Mar ca Gasson ba yëglikaay bi ñëw na ca diggante bu Eumeu Sène itam seen premier combat ca Demba Diop daan ba nga xam ne daanoon na ko ko ak ki nga xam ne nii day moom lañ doon tudd léegi muy Bombardier moom tamit ca Demba Diop la ko ki nga xam ne nii moo di Gris Bordeaux daane woon ak ndem ti yàlla sa Tyson Senior mu mel ni ki daal yëglikaay bi moo xëy ñëw ci Gris Bordeaux fat li ñu mbiram yooyu nga xam ne wala combat yooyu nga xam ne day ay combat yoo xam ne la day combat de référence la ko sunu lamb guddee muy ay bés yoo xam ne wala ay guddi yoo xam ne neexoon na lool ci troisième tigre de face bi suñu làmb xëy ñëw wax nu loolu waaye moom Gris Bordeaux daa mel ni fi nekk nii rek am na koo xam ne da ko koo langal li ci lëjal ko muy ki nga xam ne nii moo guy ki tamit coow la bari ca lool lool sunu làmb xëy ñëw di ñu wax lu mel ni kii noonu kii moom dafa xëy di dëkkaate muy ki nga xam ne nii day moo di garga numéro deux garga deux nag moom la mu xam ne daal ne na ki nga xam ne nii day moo di Quench ak Diène Kaïré lay waxal ne na comme dañ leen a boole kenn mënta daan sa morom ñu niil dugg naa ci seen diggante ku ci jóge gauche ma jël ku jóge droite ma jël ku ci jàkkaarloog man itam ma jël moom daal ñoom ñaar ñooñu la ne daal li leer ba leer ku ci ñime ñëwal mu defante ba mu saf sap moom garga deux moo xëy tey di wax lu mel ni ki noonu ci yëglikaay bii nga xam ne nii day moom moo di sunu lamb ba tey yëglikaay boobu nga xam ne nag moo di sunu lamb la ko waral mooy quatre victoire la ñu def mu ni ki nag yëglikaay bi gis na day bu njaan fi mu nekk mu ngi ci lu méttee métti la ko la ca rax dolle ko mooy moo xam ngel jon la moo bi door saison bii jeex ci ngemb dal di bëre sunu lamb xëy ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni moom yëglikaay yéenekaay bi ñëw na ci moom muy konaa bu lamsaar konaa itam daal sunu lamb ne na li leer ba leer daal jàppal moom mi nga xam ne ni day moo di konaa daal li am ba des mooy si victoire def na ko ci lamb ji ak benn defet moo tax yéenekaay bi laaj ban plan wala wan yoon la konaa war a jaar ngir carrière am bi nag mu yëkkatiwaat ko mu dem ca kaw a kaw a kaw yëglikaay baa xëy ñëw dana ko wax kii moom Cheikh Amar Deux lañ koy wax moom nag gëj naa bëre ñaari at a ngi yoo xam ne takkul ngem waaye ren nag li mu nar daal wala ñu mu dëkk mooy mu jëbu yëf ak wulli de bu bawal moom daal ne na pare na ngir jàkkaarloog ñooñu dal di bëre yëglikaay bi xëy ñëw di wax lu mel ni ki noonu bu ñu fa nga xam ne nag moo di ca la tribune moom la tribune Assane Ndiaye la la ñu a def bëri ak moom moom mu nekk nii wër-wëraalu bi ak jàppal bàyyil ji la ni ñoom te VIP la comme ñoom te li ñuy jar moom lay jar Assane Ndiaye xëy di wax loolu ci yëglikaay bi nga xam ne moo di la tribune bu ñu demee fa nga xam ne nag moom moo di record ñoom tamit ñëwaat nañu diggante Boy Niang ak ki nga xam ne moo di Balla Gaye ci jàngatub Abou Ndour moom ñëw na di ca wax leneen loo xam ne tamit dañ koy fekk fa nga xam ne moo di ca record moo di ki nga xam ne nii day moo di ancien roi des arènes ba di Manga moom nag jàppale yëglikaat ne ren day bu ñu sàgganee benn combat la nar a def ci wàllu nit ak frappe ca fa nga xam ne boog moom moo di nga xam ne moo di ca stadium Iba Mar Diop yëglikaay baa xëy ñëw wax nu ko waaye leneen loo xam ne itam ñoom ñoom nar nañu ko mooy li nga xam ne nii day moo di ab sargal wala boog ab seeti boo xam ne dañ koy seeti ñi nga xam ne nii day ñoom ñoo bokkoon ci lamb te yàlla teg ni ki daal tey loola moom moom la association ba nar ci njiital ki nga xam ne moo di màng de waaye bu ñu demee fa nga xam ne nag moo di ca leewtoo point la xam ne day wax nag Luc Nicolaï bu juboo te fi mu nekk ko booleel bi moo tax ndey kumba ne nag li muy laaj mooy li leer ba leer ndax kii nga xam a toog di xaar lig ni ko lay wala boog beneen promoteur bu ñëwee seet si ko dina bëree loolu laajum ndey ko ma fàll fa nga xam ne moo di ca Leewtoo point net ba tey dañuy dil si ca sunu làmb dem ca làmb simple ji mu mel ni ki nag ki nga xam ne nii day moo di belende moom belende ay yoonu ngi muy dem Adrien Senghor waaye demi final daal fa lañ koy kale mu mel ni foofu moom mooy ay jafe-jafe saa yu bëree bu ñëw ba demi final ñu ne ko doo jàll dindi belende ba sànni ko fo fële mu daal di taxaw kon daal yëglikaay bi moo tax mu xëy ñëw ci ki nga xam ne moo di belende waaye man daal daal li may rafetlu tey mooy loolu Manga 2 nar mook association bi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum làmb ji te bëre ba bàyyi bëre fas yéenee dem nemmeeku ji ñi nga xam ne dañoo di dimbali leen ndax nag li leer ba leer ndimbal moom fa mu gën a baaxee mooy bu ko nit ki soxlaa moo xam dafa xiif moo xam daa wéradi wala lu ko mën a dal nga ñëw taxawu ko ndax nag loolu moom mooy li war a am te itam moo lay wan nekk rek Sénégal ñoo bokk ndey bokk baay te daa mel ni kenn bëggul sa morom na ciy jafe-jafe kon kaso yi yal na ñu génn jàmm képp am amee jafe-jafe yal na ko boor bi saafara ndax moom mooy borom bët bu rëy bi. mbokk waa Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen si ba si euh, jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall di la nuyu di la ziar xam nga di nuyu internet yi di leen ziar ñoom itam di leen ñaanal jàmm euh, di ko saaku si ñoom. Babacar mi ñëw nag tey si sunu làmb record euh, Leewtoo TV ak Leewtoo point net ñu tàmbali nag ak li nga xam ne mooy sunu làmb sunu làmb nag tey dafa xëy nag def benn euh, jàngat ne tey jii Bombardier est-ce que tey jii dina am euh, tey pare na pour am combat jaral na ko lépp daa pour am combat Babacar. maanaam daal soo bëggee dégg wax kàddu gi mu leer mooy moom actuellement bañul dara ngir am combat. moo xam kase bu wàcc ba ci suufa suuf la moo xam xale buy jóg. jëm ci kaw maanaam pare na pour lépp awaa ah, loolu dama naan fi nekk nii moom carrière am foofu la toll parce que tey li am ba des mooy que ni làmbam dinañ benn at moo defe naa ko sa carrière yi waaj a jeex nag naa ne dootoo fa nekk naan di teg ay conditions ak nangam da ngay bëgg a tëj sa carrière en beauté comme ni ñu koy waxee xam nga génn pour la pour ci bunt bu mag voilà par la grande porte foofu nag soo fa tolloo defe naa ne amatul loo fay nekk naan di waxaale kase muy seer ak naan mbër bi laa bëgg a bëri ak yooyu kon yaakaar naa fi mu nekk bëreeg yow mu may la sens ngeen bëre te defe naa itam promoteur bu ko démarché ji warta mën a jafe parce que moom actuellement foofu la toll ci làmb parce que dama naan Bombardier moom amatul tey lu muy prouver ci làmb aussi tamit lu muy bañ parce que euh, euh, yi nga xam ni marqué nañu carrière Gris Bordeaux bi si njëkk mooy victoire contre Antoine Bakhoum Eumeu Sène b ak Tyson Tyson Senior yàlla na ko yàlla yërëm te ko aljana parce que ci loolu Euh, li am. Tyson sax bu mag bu mag ok kon Tyson bu mag la boo xoolee loolu yaakaar naa ne euh, buñ ci dellu see defe naa neexoon trop ci jamono boobu parce que bi muy daan Antoine Bakhoum ñu bëri bi ko jëlee si dañu doon Gris Bordeaux mi est am nañ mbokk wala du day xaru parce que Antoine Bakhoum boobu ku ko xamoon ni mu meloon ci bëri. man ci lit simple bi ñëw ci lit fra bi kenn indilagu ko ay jafe-jafe ku mu jàpp daan la kere bi ko giri jëlee defe naa ne ba mu ko daanee yaakaar naa kere ci lañ xamee nag ni giri Bordeaux mi léegi mbër la ci Antoine Bakhoum lañ ko nanguleeg mbërëm ñu ne déet ne waay mu ñëw teg ca ki nga xam ne nii moom moo di diggante mu Eumeu Sène tamit boobu Eumeu Sène mu ngi nekk gën a nekk seen boo xoolee kere bi ko giri daan Demba Diop itam ñu bëri xalaatoon nañ leneen mais gis nga na mu ko daane moo ki nga xam ne mooy voilà combat bu métti moo boo xool tamit moom ak Tyson même chose kon nekk na ay combat yoo xam ne ci moom daal ay combat de référence la comme noonu ko yëglikaay bi waxee muy bés yoo xam ne ni tamit neexoon na digganteem ak Bombardier tamit gis nga kere na mu mu na mu deme kere defe naa Demba Diop la fa dugg ci ay nit ah jafe woon na ndax defe naa kera feesoon na feesaay boo xam ne doyoon na waar moo lay wan ne daal làmb tamit da ngay toll guddi yoo xam ne nii moom da ngay nekk ci say guddi dëgg dëgg te jamono yooyu moom xam naa ne Gris ci ay guddeem dëgg dëgg dëgg la nekkoon waaw ñëw naan combat yi ñuy wax naan léegi ren dañuy wax grand contre petit ne ñu pourquoi pas dañu commencé combat Gris Bordeaux ak Gouye Gui mu ah, a xam naa langal na ko te bëgg na ko yaa ngi dégg waaw kon comme nag ñu ngi naan euh, Ama Baldé Modou lu Boy Niang Balla Gaye Gris Bordeaux ak Gouye Gui itam warees na ko mën a wax parce que lim li li li waa làmb ren dafa mel ni li ñu bëgg mooy maanaam dañu bëgg air bu bees bu ñu nee air bu bees nag mooy combat yu bees. combat yu bees bàyyi revanche. ñoo di leen ren lu bees. tàngal ceeb bi tàngal ceeb bi exactement waaw ndax bu keroogee bu tey boo amee euh, Ama Baldé bu Lô am Balla Gaye de Boy Niang am Gris Bordeaux ak ki nga xam ne ni moom moo di guy gi am keneen ak keneen am Bombardier keneen am keneen ak keneen yaa Eumeu Sène ak keneen Eumeu seen ak Tapha Tine yaa ngi dégg loolu yëpp ay combat yu bees la kon defe naa foofu actuellement ren fa la nit ñi bëgg daal làmb ji aw waaw. Babacar suñu su suñu laam lañuy dem fi nga xam ne mooy tribune tribune la dafa xëy jox kàddu gi ki nga xam ni mooy euh, Assane Ndiaye patron de Bawal production moom daal nee na dafa validé na combat Boy Niang Lac de Guiers Boy Niang euh, ba Tapha Tine Balla Gaye nee na combat bu logique la waaw Assane loolu la wax ne Tapha Tine ak Balla Gaye 2 dafa logique effectivement logique na parce que li tax mu logique mooy dañoo wat bëri woon Balla daan ko Tapha Tine ñëw xeexaat ba nekkaat ci place am ci course bi kon defe naa loolu Assane Ndiaye waxee defe naa bëri nañu ko wax Balla Gaye 2 ak Tapha Tine combat gënu koo jaadu yaakaar naa ne te xalaat naa ne ku ko dox itam mën naa am nga réussir ko la foog waaw suñ jógee nag si tribune nañu dem si record record nag moom tamit dafa def benn jàngat ne euh, combat bi nga xam ne mooy Balla Gaye Boy Niang choc inévitable moom daal ñoom ñaar foog ñu laale waaw loolu la laa loolu la record xëy def ub jàngat ne ñoom ñaar mënta ñàkk ñu laale ah waaw parce que actuellement moom defe naa ne coow li bëri na ci diggante boobu tamit wax ji ni des fois sax Babacar dina ci wax wala Ndeye Coumba Fall wala nangam kii supporté bam day yaakaar yow da ngaa wax rek pour da ngaa am foo far wala nangam te yàlla xam ne loolu lépp amu ci dafa fekk ne nag lamb bu toll foofu buñ ci bindee yow faw nga wax ci yaa ngi dégg laaj ci xalaatu nit ñi yu mel ni ki noonu looloo tax ñuy wax ci combat Balla Gaye ak Boy Niang te Balla Gaye tamit ku ne dégg na ko li mu wax ci micro Leewtoo TV moom dàqul kenn bañut Boy Niang bañut tafaatin Tine bañut Bombardier bañut Gris Bordeaux tëjul kenn portam moom da ko ubbi mu ne yang kon nag ku ñëw war mu bëri ak yow kon xëy na loolu tax Abou Ndour tamit xëy def ci boobu jàngat kani combat boobu mënul ñàkk keneen ki nga xam tamit euh, jox nañu information si li nga xam ne mooy record nee nañu tey daal Manga 2 dafa fas yéene dem seeti anciens euh, lutteurs yi nga xam ni ñoo représenté Sénégal fu nekk dem seet leen nemmeeku leen daal waxtaan ak ñoom Babacar. waaw loolu moom defe naa am na solo waaw parce que nag loolu mooy delloo mbaat si ci ndaali rek parce que ñoo ñuy moo xam ku ñu ne bañ ci toll war a défendre réew mi défendre nañ ko bu dee écréñ boo ko ne dem bañ ko war a défendre défendre ko défendre nañ ko ci na mu gën a rafete kon tey nag suñu demee àddina mu tëdd noonu nit kii ki dem ba benn moment da ngay nekk mag boo nekkee mag nag wéradi dina la yomb yooyu nag bu amee defe naa ne ña nga bokkaloon milieu bu ñu retourné wu di ñëwaat di la nemmeeku di la seet si di la dimbali di la soulager defe loolu rafet la kon màng ngi doy ñu koy nuyu euh, association boobu yëpp mais di ci nuyu tamit suñu père Max Mbargane ndax jokkoo nañ ci sànq léegi ndax moom it loolu ñuy dox am na part bu rëy bu mu ci joué ndax père Max moom li li ma lay wax rek moom pusale ci biir gaañee moom day ñëw rek waaw kon loolu rafet la donc nag suñ jógee nag si record yi dem si Leewtoo TV Leewtoo TV nag dafa am euh, benn invité bu mu amoon muy général Malika te ANPS nommé ko ma lutteur en lutte am na euh, ñëwoon na nag seet si journaliste Leewtoo Leewtoo bi yëpp groupe bi donc am na ay waxtaan waxtaan bi nga mu sekk yow am na ay kàddu yu mu yu mu la sànni Babacar. waaw loolu am na général Malika ñëw na fi wax dëgg yàlla boo gisee itam parce que loolu neex na parce que ñun à la plupart suñ ko ñun ñaa daan dem ci moom bi yoon nag moom moo sol dàllam ñëw seet si ñu fii ci kër gi. nuyoon ñu présenté ko waa kër gi yëpp muy lu rafet lu lu ñu neex vraiment ñu koy félicité ci loolu nga xam ne nii gagné na ko muy meilleur lutteur meilleur lutteur ci wàllum simple ci at bi jeex moom tamit mbër la bi nga xam ne daaw am na lu bëri lum wane ba tax waa ANPS jox loolu yaa ngi dégg kon xale la na góorgóorlu loolu tamit la ñuy wax moromam yi mu nekkandul ci làmb ji yëpp et tamit xam nañ ci moom yar waaw parce que yar moom dafa am solo te gis nañ ci moom lu mel ni ki noonu jikkooy mbër ji tamit bu nee ci làmb da nga koy gis si moom loolu nag mooy mbër waaye tamit di ko gërëmaat rek encore une fois ndax ba mu ñëwit indaale nañu sëriñ ndax man indil na ma montre jox ma ko te defe ko jox waaw kon général ñu koy nuyu di nuyu nijaayam Daouda Soumaré mais tamit di ko di ko jéglu ndax vidéo bi ñu bi ci loo xam nag mooy faral di demee noonu encore une fois mais di ci profité wàll di internet yi encore une fois jàpp leen na rek ki lay bégal des fois mooy juum ci lim lay jox gis nañ benn vidéo am na lu ñu ci dox duñ tudd dara mais l'essentiel que ñu ngi leen di jégluwaat encore une fois jàpp leen ay nit rek lañu des fois dañuy juum bu ci tey li ngay def wala ki ngay jëflanteel ci moom ngay juum kon ñu ngi leen di balu àq bu baax a baax ci njumte yi Babacar Diém nag si Leewtoo point net foofu Leewtoo point tey dafa def benn samp laaj ne est-ce que tey ji loo Lo nekkul otage yu Luc Nicolas parce que dox na combat mu ak Ama Baldé moom ak Ama Baldé Euh, déggoon nañu si ay kàddu mais daal Luc daal boobu ba léegi mënu fexe bu wutal ki nga xam ne mooy Modou adversaire Babacar. waaw déggoon ak moom ci ay kàddu kantaan nag comme noonu la moom ci liggéey yaakaaru Modou Lo nangu cee nekk otage kenn lenn kay mën a am nga wax ko ko mbaa ngeen waxtaan déggoo mu nangul la nga wut adversaire boo ko amul nag yaakaar naa ne moom am na démocratie bu toll nit na dem bëri juwaat yeneen combat ndax bëri na lu mu bëri te Luc Nicolaï tëggu ko bi mu jël roi des arènes bi Luc tëggu ko comba ba ko jiitu mook Balla Gaye de Luc tëggu ko mais nag moom it Luc promoteur la su ko soxlaa wax ko mu nangul ko taxaw di ko xaar xëy nañ suñ demee ba ca kanam nag bu amul lu leer keneen ku ko démarché ci beneen combat man man nga ma nga réussir ko léegi it man na ko démarché ci beneen adversaire mais côté otage bi moom yaakaaruma ko quoi laa foog man waaw Babacar si kàddu yooyu leen di tàggoo leen jox dig daje suba incha mais balaa ba muy nuyu sama yaay Mère Sow Mohamed Diouf di nuyu Astane les chéri Khadija Diallo di nuyu Zé depuis Paris euh, di nuyu aussi Abdou Gueye doomu day cité depuis di nuyu ki nga xam ni mooy euh, bébé Fallou bébé Rokhaya bébé euh, Diarra Penda Junior Moussa ñoom ñëpp si Parcelles Assainies li nuyu Aïcha Faye aussi madame ñaan naan ko nam nañ ko lool. waaw di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp wax ne yàlla nañu yàlla defal jàmm te comme na ko maam Abdou Aziz Dabakh doon wax rek yàlla na yàlla tàppe xol yi barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais encore une fois di jàllewaat rek jeune amateur yi Ilimane Sarr tey mooy ñetteelu fan bi ñu koy ñaanal fële ci dëkk bu ñuy wax Mbewaan di nuyu jeune amateur yëpp ñoom Awa xam nga ñoom Ibra Diouf taalibe sëñ Mbàkke Madina ñooñu ñëpp bokk foofu xam nga maa ngi leen di jaalewaat Elimane Sarr xam ne ñun ñoo ko bokk parce que comme li ma wax ñun ñoo bokkoon marché leen di dóor kon tey bu bu ko yàlla jëlee duñ mën def jaale ko ay mboxam jaale ko ñu mbokkalum di yëngutu ñaanal yàlla yërëm ko xare ko aljana mi ngi di ñaanal kull ku tëdd ci suuf rek di ci jiital sama wajur bu jigéen tamit yàlla leen yàlla yërëm xare leen aljana ci barke yonent wa sallam parce loolu moom du du fi jóg juddoo fi nekk nekk fi yàlla neex ko mu jëlee la fi du njàmbaar te du ñàkk fulla di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp ak mais Khadiros Ndiaye bu doomu Aziz Ndiaye al amin ca Allemagne du ma ko fàtte Khadiros maa ngi koy nuyu bu baax a baax di balu ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm